di ñaan yàlla suñu rakk suñu xarit suñu mbokk di Sadio Mané yàlla na yàlla saafaral yàlla na yàlla def ba li ñépp di ragal bu mu am ndax Sadio Mané suñu rakk la di sama xaritu benn bakkan ñu am relation boo xam ne relation affective la xam nga ma koy waxee ci wolof du lu may politiquer nag ndax kenn mësumaa gis sax ma wax lu jëm ci moom daanaka ñu bari néew nañu sax ñu xam ni xamante naa ak moom moo tax su may wax damay wax diggante nit ak nit d'abord ndax lu mel ni bu amee compétition bu toll nii joueur bu ci waroon mën a dem rek te demu ci moom moo ci njëkk a ñàkk parce que compétition la boo xam ne kuy football rek ñaan nga yàlla football ko te di ko préparer ay ati at joueur qualificatif ak ni mu méttee ba yàlla yóbbu la foofu bu ñëwoon waroo ci dem yow yaay yow yaay njëkk am jàqare kon ñu ngi koy ñaanal la ci nit ñi di ragal bu mu am ba fii ay fan yu gàtt gàtt gàtt mu mën a dellu ci ay yitteem mën a dem ci jongante ga waaye gannaaw moom ci boppam xam nañ ni askanu Sénégal yépp nag am na yaakaar ci moom ba nit ñi jàpp nañ ni bu ko yàlla yàlla dogaloon mënul teew ci mbër ma day mel dina am lu bari lu wàññeeku ci équipe bu Sénégal donte nag football sport collectif la du mbirum benn nit moom dong boo ko jëloon dugal ko ci terrain it defe naa balaa match bi di jeex 1000 0 dina am kon dafa am ñu mu bokkal équipe bi te kenn ku ne am solo ci li ñuy liggéey waaye moom da cee am cër goo xam ne ñépp xam nañ ko kon ñu ngi koy ñaanal ci intérêt boppam waaye ñu ngi koy ñaanal ci intérêt Sénégal yépp yal na yàlla def ni li tubaab naan plus de peur que de mal mooy yàlla buñ liñ ci ragal bañ a am ci mbir mi